la la la la la la لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا هذا la la la la la la la la la la la

la la la la la la

la la la la لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله

إذا وتفكرا متى دفنوني في التراب تحدثوا لقد كان ينوي الخير لو كان مخسرا أجاور ربا واهبا متفضلا بحبري ويؤتي عبدا مال كلها يرى حياتي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 هيج شوقي والمحبة ودنا وأرقني إذ مخلوق بائي يؤنى سني ترسي نفسي والأقلق جهارا وقلبي أنسه بشفائي لا إله إلا الله الله palla bul haar ñu lay woo si rëbb allah baya ko yara allahu allah la ilaha illa allah allahu allah la ilaha illa allah allahu allah bëgg baay moo lay noppal la bul haar ñu lay woo si rëbb allah baya ko yara Tijanillah هلا تجاني لا لا هلا تجاني لا لا هلا تجاني لا لا بايلنا بايلنا بايلنا بايلنا باي بايلنا بايلنا بايلنا بايلنا باي بايلنا بايلنا بايلنا ku bëgg bay raw nga bay na bay bay na bay lan na bay lan na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 الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة برحمة الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله برحمة الله الله baay mooy yàlla allah allah mooy yàlla baay mooy yàlla allah allah mooy yàlla baay mooy yàlla allah allah mooy yàlla baay mooy yàlla allah allah nangu leen baay mooy yàlla allah allah nangu leen baay mooy yàlla allah allah nangu leen baay mooy yàlla allah allah nangu leen bay mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla bay mooy yàlla mooy yàlla bay mooy yàlla mooy yàlla bay mooy yàlla mooy yàlla bay mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla baay mooy yàlla amul sikk baay mooy yàlla mooy yàlla baay mooy yàlla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 bay dem ba baay doy nga ñu baay bay dem ba baay doy nga ñu baay cinema. ngoon xoolal ci jaww ji fa xool ci sa borom ala ala la la ilaha illallah la la la la bay la bay allah la la suñu bay général la bay allah la لا

bëgg leen ko suñu baay la baay رسالة جنرال لطايك suñu baay baayo barama ñasi wax leen ko suñu baay baayo barama ñasi barama suñu baay baayo wax leen ko suñu baay bayo Barhama Ñas Barhama suñu baay la Barhama Ñas Barhama suñu baay la Barhama Ñas Jëm Sala suñu baay la Barhama Ñas Jëm Sala suñu baay la Barhama Ñas Magal leen ko suñu baay la Barhama Ñas Magal leen ko suñu baay la Barhama Ñas La ilaha illallah baay Barhama Ñas La ilaha illallah baay رسول الله إلا الله باي برهام لا برام سونيو بايلا برهام لا برام سونيو بايلا برهام لا برام سونيو بايلا برهام لا برام سونيو بايلا برهام الله مخلن كسونيو بايلا برهام لا باي بابا سونيو بايلا Barhama Niass sa baay baba suñu baay la Barhama Niass sa maami imam suñu baay la Barhama Niass ndokkeel leen ko suñu baay la Barhama Niass su magal magal suñu baay la Barhama Niass su magal magal suñu baay la Barhama Niass Allah Barhama suñu baay la Barhama Niass Allah la ilaha illallah baay Barhama Niass Allah la ilaha illallah suñu baay la Barhama Niass Barhama suñu baay la Barhama Niass wax leen ko suñu baay la Barhama Niass Barhama suñu baay la Barhama Niass wax leen ko suñu baay la Barhama Niass Barhama suñu baay la la ilaha illa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 insa la la la ilaha illa allah insa la bëgg leen ko jëngi sala kamal jëngi sala dokkal leen ko jëngi sala kamal jëngi sala suñu bàyyi jëngi yàlla kamal bàyyi allah la ilaha illa allah allah la ilaha illa allah allah la ilaha illa ndokkeel leen ko suñu baay ji tama baay dem ba baay ndokkeel leen ko suñu baay ji tama baay dem ba baay seexi dem ba suñu baay ji tama baay dem ba baay seexi dem ba suñu baay ji tama baay dem ba baay bëgg leen ko suñu baay ji tama baay dem ba baay màggal leen ko suñu baay ji tama baay dem ba baay wax leen suñu baaji tama bay dem ba bay wax leen ko suñu baaji tama bay dem ba bay ay màggal leen ko suñu baaji tama bay dem ba bay ay sopp leen ko suñu baaji tama bay dem ba bay saxi tama général bi kama bay dem ba bay saxi tama général kama bay dem ba bay ay jeng sala suñu bay la kama baaju ba bay defar ba wallaay bëgg nañ la suñu baaju ba tukulóoru jë wallaay bëgg nañ la suñu baaju ba bay dem ba wallaay sopp nañ la suñu baaju ba tukulóoru billaay ne bëgg nañ la suñu baaju ba bay dem ba waay doyloo nañ la suñu baaju ba tukulóoru jë bay saxi jamba général bi kama bay dem ba bay saxi jamba général bi kama bi kamaa tukulóor ay màggal nañ la général bi kamaa bay dem ba bay ñaanal leen ko général bi kamaa bay dem ba bay fanu gudd wér gi yaram kamaa bay dem ba bay fanu gudd wér gi yaram kamaa bay dem ba bay ay seet demba suñu xol yi yaa ci bay dem ba bay bëgg nañ la suñu baaji kamaa bay dem ba bay ko général bi commande bay dem bay wax leen ko général bi commande bay dem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

yàlla Cheikh Demba kum doon sa baay sant nga yàlla laa ilaaha illallah Cheikh Demba kum doon sa baay sant nga yàlla Cheikh Demba kum dee sa baay. soo tëggee ne la. Cheikh Demba kum doon sa baay. soo tëggee ne la. Cheikh Demba kum doon sa baay. soo tëggee ne la. suñu baay ji kum doon sa baay. soo tëggee ne la. laa ilaaha illallah. Cheikh Demba kum doon sa baay. soo tëggee ne la. Cheikh Demba kum doon sa baay. soo tëggee ne la. suñu baay ji kum doon sa baay. soo tëggee ne la. suñu baay ji kum di sa baay. soo tëggee ne la. suñu góor gi comme di sa baay soo ci dee nelaw la ilaha illallah abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay tigil kese la doom si di baram